nataal juróom benn aadama ak awa am nañu yeneeni doom askan wi di gën di yaatu nit ñi di gën di bari te ñépp ci aadama ak awa lañu soxe ko ñépp dañoo weddi woon yàlla nit ñi di gëm di soxor seeni baakaar dafa bari woon ba yàlla ni daf leen di mbugal suuxal leen ci ndox amoon na ci ñoom waa ju ñuy wax nooyin ku bëggoon yàlla la te ragal ko yàlla wax nooyin mu defar gaal gu mag si gaal googu la ko yàlla di musalee moom ak njabootam noyin def na ay at ngir noppi gaal gi ci biir at yooyu daan na tëkku gaayam yi ngir ñu bàyyi yoon wu bon wi ñu jël ndax ñu mucc si mbëgalu borom bi wante gaa ñi dégluwuñu ko nooyin doon wax dégluwuñ gaa yi dëgër bopp nanguwuñu bàyyi li mu leen doon tere